paa géwél bi dañ koo tegal ceebu yàpp bu bari mu lekk ci ceeb bi boole diw beeg ceeb bi du dànk day day tubbale as rek seex mu lekk lekk lekk ba biir bi fees xam nga naaj wu tàng ak diw gi paa bi di ñibbi paa bi li muy dox yëpp ndekete diw gee ngi rogalaat mi ngi senn diw gi rogalaat di dem mu dem ba dajeeg benn maire maire bi ne ko sama càmmiñ xamoo fu xew mi am fii mu ne ko toppal diw gi